Yérim euh, euh, ñu ngi lay nuyu yaa nga ca Lyon ca Tugal euh, gis nga xibaar bi muy may Maimouna gis nañ dimanche sax yaa ngi moom def ngeen émission boo xamante ni très bien suivi on apprend quand même son agression am ñu ko bëggoon a faagaagal jamono ji mi ngi ci lali lopitaal nooy réagir tiis wi. waaw salaamaaleykum Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga toogal ci plateau boobu ni may réagir mooy naqar. naqar wu rëy rëy rëy rëy ak euh, euh, ñaawlu ba fu mu mën a toll euh, ñaawteef bi nga xam ni moom la def ndaxte dem ba gis jigéen di ko agressé à l'arme blanche je pense que foofu la àdduna mën a yem ci ñaawteef ndax Chérif xaj sax xaj xaj sax mënul supporter góor muy dóor jigéen xaj bu xaj toogee nii góor di dóor jigéen xaj bi da koy song donc bu demee ba góor te arme agressé jigéen jam ko ko ba deretam tuuru pour man foofu la barbar yi mën a yam euh, léegi nag xam nga Sénégal dañu gis benn affaire muy raam di raam di raam boo ko signalé ñu saaga la wax la ne man toog naa ak émission Maimouna Ndour Faye ma ni ko yow man ma jàmbal ak yeneen i nit ñi ngi ci liste ñoo xam ne nii ñi ngi def lépp pour faagaagal ñu mu ne ma effectivement attaqué nañ sama kër et cetera et cetera et cetera je pense que yooyu bi mu amee ci la nguuru Sénégal waroon jël ay jumtukaayam pour protéger ko beneen maa ngi nii jàkkaarloog benn waaye bu tudd Moustapha Niang nee na ci collectif des anciens détenus la bokk y a pas heures mi ngi publier nii Euh, détenus politique yi famille victim yeeg frappe ak yëpp dañuy déposer pen plainte collective contre Maïmouna Ndour fay maanaam dañuy dañuy dañuy boole yëf yi muy muy muy kii nga xool xoolal par exemple Chérif nga dugg Facebook nga def turu Maïmouna Ndour fay nga xool attaque yi nga xool euh, bind yi ñuy bind ci moom nit ñi ak wax ji yooyu yëpp di accumuler wu di accumuler wu di accumuler ba xëy suba ne teel daal ci kawam. bu fekkee ne alerte amul woon sax mais alerte am na alerte yi bari na tu comprends. Mhm. man alerte na ñeneen ñu mel ni mañ alerte nañ Moustapha Diakhaté alerte na ñu bari alerte nañ ñëpp gis ko ñëpp dégg ko ci Sénégal. Mhm. da ngay alerte ñu xëy si ba saaga la et cetera wax la n'importe quoi. bref ñi ñi def lii moom lan mooy euh. seen objectif lan mooy objectif finalement. xam nga dañu nekk depuis plusieurs années ci benn kilomètre de terrorisme intellectuel. dañu dem ba Sénégal sax ñëpp dañoo ragal a wax léegi boo waxee ñu saaga la menacé la taal sa kër wala attaqué sa oto yaa ngi dégg mais bii nag dañoo franchir benn palier maanaam attaqué physiquement nit ki jam ko paaka pour rey ko loolu c'est c'est c'est c'est c'est extraordinaire mhm. euh, Chérif gis nga réew euh, chaque jour maa ngi koy wax nee naa violence physique mi ngi jóge ci violence verbale mhm. gis nga gis nga gis nga gis nga kuy xeeb saaga saaga ci xeex lay jóg lay lay lay lay jëm mhm. xeex ci rayante lay jëm rayante guerre ci guerre lay jëm donc kenn du xeeb saaga cest à Sénégal ni ñu ni ñu saaga ni ñu banaliser xas nit nu ñu banaliser accuser nit te tegoo ko fenn moo tax ñenn ñi nga xam ni dañoo gàtt xel jàppee liberté libertinage Mm-hmm. lu leen neex def. ku leen neex saaga. Mm-hmm. attaqué ku leen neex dal ci kawam. Mm-hmm. mais mais loolu ba kañ. loolu merci beaucoup en tout cas merci ñu ngi lay masawu euh, yow journaliste bi wante aussi leader d'opinion bi fii ci réew mi gisoon nañu aussi may mun a xaritam nga woon macha allah. Euh, xibaar bi jóge ci kër docteur nag euh, mi ngi dal xel ndax finalement nee nañ c'est stable ñu ñaan yàlla mu yëkkati ko bon courage Yérim Euh, bonne ah, mais, mais euh, am na lu ma bëgg a sàkku Chérif uh-huh. je pense que journaliste yëpp yi ñu war a def mooy documenter attaques yeeg saaga yeeg maanaam ñëpp ñi nga xam ni Facebook ak plateforme yëpp. parce que lépp dafa bàyyi ay traces mi ngi ci biir je pense que journaliste yi li li gën a tuuti lu ñu mën a def. mooy capturer loolu yónnee ko ci enquêteurs yi. c'est le minimum c'est-à-dire enquête bi dama jàpp ni képp kuy journaliste. Mhm, war nga cee képp kuy journaliste. waaw war nga cee dugg collecter ay données. Mhm. jox ko enquêteurs yi pour que ñu def ñaawteef boobu ñu mën leen a teg loxo nu mu gën a gaawee. tout à fait tout à fait merci beaucoup. kon nag aussi nit ñi xalaataat bu baax a baax a baax. ñi nga xam ne nii ñi ngi saaga ñi ngi taal ñi ngi ñi ngi lakk xam nga ñi ngi yàq. jërëjëf merci bonne journée chez vous à Lyon ah jërëjëf. merci Yérim. Hmm, merci mu doon kon euh, Cheikh Yérim Seck journaliste bu ñu doon jokkool fële ca Lyon ginnaaw li dal Maimouna Ndour euh, ba ñu xëyee ba tey ñu ngi koy wax Maimouna Ndour Faye mi ñu agressé benn émission bu mu doon amal ak Farba Ngom démb image bi ngeen di gis ni sax mooy euh, dernière image mooy bi ñu amoon moom bi mu doon enregistré émission boobu ci lañ ko gaañ waaye heureusement hôpital militaire bu Wakam fa lañ ko admettre mhm. ñu ngi koy faj bu baax a baax jamono ji bakkenam mucc na bu ñu sukkandikoo ci dernière le fait est que ce genre de kenn mënu koo effacer bu ñu la xasee ba agressé qu'importe bu yoon defee liggéeyam ñu jàpp ñëpp tamit ça reste à vie euh, d'autant plus que métier bi du loo xam ne da nga koy bàyyi donc chaque fois boo xëyee di liggéey wala boo wàccee tamit dafay des ci yow ba tey Chérif malheureusement noonu la ñu yendoo tey jëlee euh, merci ba lundi jàmm. ba lundi ak jàmm incha allah encore une fois soutien solidarité ak Maymouna ak suñu naataangoo yee nekk fële